ci mën a wax c'est-à-dire c'est un facteur très déterminant par rapport lu doyen wax nii nii par rapport à la à cette masse silencieuse là cest ñoom ñooy déterminer parce que vote bii nii élection présidentielle bi nii ce sera un vote utile entre ceux qui sont pour le système et ceux qui ne sont pas pour le système ñaari facture ñaari temps la moo tax moo tax ñu bëri nag est-ce que du loo tax kon ñu bëri ci ay candidats am problème mu émerger non mu siiw ak mobiliser parce que li may wax rek man dama jàpp sénégalais souvent moom lenn la xam soit c'est noir soit c'est blanc ay mu ci diggante bi xamuñu loolu ay centriste xamuñu loolu da ngay féete fii mbaa nga féete fee ba ci candidat yeneen yi ku ci nekk bu génnee yaa ngi koy xoole bëtu pouvoir wala bëtu opposition mënoo ko xoole mukk bëtu quelqu'un boo xam te ni dafa nekk ci dig digal bi effectivement à équidistance la preuve mooy Pastef cest dire que quel que soit le candidat bu ñu mettre en place ñun ñi dinañ dinañ ko votel donc vote bii ni sera un vote utile te masse boobu noonu mobilisation sociale bi nii ci campagne bi nii moom mooy yóbbaale également la masse silencieuse là moo leen di orienté pour ñu mën a def vote utile parce que en fait bu ñu fàtte ni Macky Sall bu muy ñëw bu muy ñëw ci pouvoir bi nii dafa fekk ni le deuxième mandat de Abdoulaye Wade a été une catastrophe n'est-ce pas en termes gouvernance scandale yu bëri yu bëri ci matière de bonne ci ci moment boobu noonu ci contexte boobu noonu la Macky Sall jël pouvoir bi mm. bu mu ñëwee ci pouvoir bi nii c'était quoi c'était la patrie avant le patrie c'était également la, une gouvernance sobre et vertueuse la patrie avant le parti oh, oui la patrie avant le parti donc gis nañu ni également c'est une gouvernance sobre et vertueuse mm-hmm. même boo xoolee ci première année gouvernance am fête de l'indépendance amul woon et cetera donc c'était une gouvernance sobre mais plus ñuy avancé wu plus bi nii plus gouvernance bi nii di gën a di gën a dégradé wu donc dafa dem ba atteindre un niveau de dégradation boo xamante ni nii dafa jaaxal nit ñi nii ce qu'il a fallu mooy utiliser la force pour mën a gouverner mais sinon de 2019 boo xoolee même 2019 avec Covid bii nii c'était une gouvernance de fer avec euh, la restriction des libertés ñu jóge foofu noonu Euh, le procès Ousmane Sonko 2021 et cetera donc loolu noonu boo ko xoolee c'est-à-dire que en fait les sénégalais boo xoolee dañoo bëgg respirer wu encore te boo xoolee scandalu Covid bi nii les 1000 milliards les 94 milliards les 29 milliards n'est-ce pas c'est-à-dire que dañu poser le pouvoir a posé ay actes yoo xamante ni ce sont des actes de flagrance délit quoi en fait ay ay yoo xamante ni ay infractions yoo xamante ni mën na ko qualifier nii ay c'est-à-dire que c'est comme man je vais ñeneen ñi nii lu ñu lu ñu ci mënti xalaat rek man euh, damay continuer lu may def quoi. donc xo euh, boo xoolee Covid 19 bi rapport bi nii ba tey jii nii y' a pas eu de coupable alors que euh, rapport boobu noonu c' était clair y' avait des personnes qui étaient visées boo xoolee rapport OFNAC également donc kii nii mu ngi ci OFNAC mu ngi ci mu ngi ci mu ngi mu ngi def liggéeyam nga dem ba ci biir nga génnee ko foofu noonu parce qu'il a rendu un rapport public et cetera xoolee loolu yëpp sénégalais yi ñuy ñuy ñuy ñuy bu fekkente ni sax gouvernance bi nii sénégalais yi ñu ngi ci doon gis seen bopp. c'est-à-dire bu fekkente ni prix produit de première nécessité yi ni prix ni dañoo wàññi woon mm-hmm. donc loolu noonu mën na jouer en faveur du pouvoir mais gis nañu instant bi ni tout a augmenté et cetera mm-hmm. donc et l'opposition et euh, en particulier la coalition Diomaye président ñoom lu ñu imposé mais maanaam le système et l'antisystème c'est comme je comme je l'ai dit tantôt entre les pauvres et les riches mm-hmm. en réalité même boo xoolee na ci seen campagne bi ni comme ni ma ko waxoon sànq boo xoolee ni ñuy defee campagne bi nii doyen wax na ko wax na ko sànq c'est-à-dire que da gis ni nii c'est une opposition benn opposition moo am entre le pouvoir et l'opposition entre les riches et les pauvres ñi nii dañuy toog confortablement di xaar euh, seen seen leader def boo xoolee aussi même ci discours